mbokki internetu seen acti tv ñoo ngi leen di nuyu di leen wax rekk dal leen ak jàmm fi seen chaîne youtube chaîne bi leen di jox seen information ak li xew ci réew mi tey nag di àllarba fanweer fan ak benn ci weerum août ci atum 2022 dinañ ñëw ak yéen ci li gën a fës ci xibaar yi xibaar yi niki tey dañu ko door ak artiste bu banlieue boobe di Sidi Diop ginnaaw ba ko ambassade bu États-Unis bi bañalee li dip visa pour dem ci bi lépp réew mu nekk nag lu ko métti lu ko naqarlu ki nga xam ni nag moo di Sidy Diop nag jëf li ni mel moom a Sidy ñaaw lu na ko trop te rafet wu ko te tax jàpp na ni sax dafa am ñu ci laxasu si ginnaaw ba mu jaral ko mu toog di jooy ba site internet yi wër ko Qatar 2022 bi nag juy li nga xam ni moo di piment fësal na tey jii mayo bi nga xam ni équipe bu Sénégal bokk ci bi lépp jongante bi am foofee ca Qatar moom la war a sol pour amal li di jongante ci bi lépp réew coupe du monde boobee di xam le ni rek nag Sénégal fay na xaalis bu takkoo takku ngir digganteem ak Bolivie mën a antu weerub safara teer na altine ji ba tax na li di bu màggalub Tuuba dinañ ko amal fukki fan ak juróom ci weerum septembre bi ñu dëgmal ba tey ci wàllu football ak joueur bi di Pape Matar Sarr le journal bi fësal tey ci demam foofee ci Italie ngir bokk ci jongante bi di Serie A mel jaxaay la xewee ab sàcc bu fa amaloon ba tax teg na loxo benn lutteur bu bokk ci équipe bi di Tay Singer ak ak benn tiktokeur bu police jàpp ni rek dafa filmer li ne mel ba tas ko ci réseaux sociaux yi tiis ak nakar ci wàllub accident fii ci réewub Sénégal nga xam ni li ñuy faat ci bakkan doy na waar ci jéggi ne dayoo loolu accident yi nag di am ci réewub Sénégal toll na fi nga xam ni at mi nañ ci enregistré lu tollook 700 moor ci benn p année ba tax na nag kuréel gi di ci wàll ba dem beeg dikk bi taxaw taxaw nañ témbe pour saafaraal li ni mel ba li nga xam ni moo di accident fii ci réewub Sénégal dina mën a wàññeeku bu baax a baax kii fës na loolu ci réseaux sociaux yi moom nag Nabou Dash xamee nañ ko ci wàll sëy yu muy dugg di tas na kii di Nabou Dash mel na ni daa nekk ci ay gët yu setagul ginnaaw ba yaayam ak jëkkëram ju bees ji di monsieur Berkane jële ko yóbbu ko foofee ci hôpital Fann ngir faj ko ndax ñoom rek jàpp nañ ni kii di nañ ni kii di Nabou Dash dafa wérul te dafa desee ànd ak sagoom moom nag moomee di Nabou Dash taxaw na ci réseaux sociaux yi gannaaw loolu yàq lenn lu mel ni xamee moom nag rafetluwul benn yoon jëf ji nga xam ni kii nga xam ni moo di jëkkëram ak yaayam joojee jëf nañ ko pour yóbbu ko fi nga xam ni moo di hôpital bu Fann ngir jàpp rek moom nag Nabou das mi dafa ànd takk xelam ba fi mu ne nii nag mi ngi ci loxol député boobee di mam jaara Fam gannaaw ba mu jëlee kii du Nabou das denc ko foofee ca këram ci wàllu ginnaaw ba Sénégal daanee tey jii Cameroun kawte foofee ca Linguère ginnaaw ab sàmmkat ba mu daal di sàmmee bay ñibbi këram bett na ki nga xam ni moo di jabaram ci biir néegam mu sekk ak beneen góor ba tax na nag mu dagg ñaari baaraam ci kooku doon doon sekk ak jabaram ba fi mu ne nii ñoo nga ca loxo la yoon. xibaar yi nag dinañ ko ndar képpee foofee ca Pikine gannaaw ab maçon ba mu demee seeti kii dépp xaritam mu jox ko ab mandarine nag ci la ko lekkee daal di génn àdduna. mbokki internet seen ak acti tv tey nag li leen leen indiloon ci li gën a fës ci xibaar yi di leen jox uh, dig daje ëllëg waaye laata loolu waaye leen uh, di abonné te bu leen fàtte appuyé wu ci lii di cloche bi pour di mën a am suñu ay vidéo à la prochaine ci yeneen xibaar fii seen chaîne youtube seen acti tv